Euh, lors rek le Sénégal et euh, surtout la presse sénégalaise euh, nous Adina suñu mak suñu professeur suñu wayjur ndax noné lañu jappé di ñaan suñu borom subhanahu wa taala xari ko aljana loxom ci gi gërëm bu baax mi son excellence le président Sall ci tour wi ñël dara ji di mu ko lol waye également futur média gi nga dernier employeur notamment le PCA le directeur général ci taxaway gi ci gunge gi et cetera seede euh, membres ànd di ben Camara qui faisait la fierté de sa famille biologique et la fierté de toute la presse sénégalaise euh, ci ci taxaway gi ci walu ngor ak liggéeyin wi ak it euh, ni ñu koy waxe sa su ne le gi métier métier tasam xibar c'est très important école bi ceci garde gàddu euh ndax presse mom bu yàqu ci rew musiba la yalla yalla yàlla wat lepp bu ko defee lepp delu à l'endroit ñu jaale njaboot gi jaale ñëpp pencoo gi tey di waxtaanee wàllu entreprise yi ñu ngi ci ëllëgu fête du travail euh, revendication yi naam baax na waaye it euh, ndax ñun ay liggéeykat lañu ci gàttal loolu mooy wax ji ndax am nañ culture d'entreprise ci jokkoo bi euh, ak ñun Mbalou Dia ñu ngi lay ziar bu baax Thiam. maa ngi lay ziar Alaaji Assane di la nuyu di nuyu ñuy déglu yëpp.

xew-xew bi ñu àndoon. Mhm. te loolu vraiment ñu ngi ñaan yàlla yàlla dolli ko yërmande. amiin yaa rabbi. te liñ ko duppee aussi c'est si nekk na aussi lu ñu rafetlu. Mhm, dëgg la jërëjëf. loolu lu mérité la aussi. dëgg la macha allah yàlla ko daal di teg loxoom euh, si njaboot gi. amiin yaa amin mbaalo ñu ngi ñu ngi waxtaanee tey wàllu liggéey ndax xam nga àddina ak tolluwaay li ci wàllu économie xat-xat yi euh, liggéeykat yi am nañ ay ay sañ-sañ yoo xamante ni euh, effectivement syndicalisme xeex moo koy joxe ah euh, parce que dara dees ko joxe ci àddina ci ci ci ci ndab loo xamante ni dañ la koy defal mu nekk ndabam or wala wurus waaye tamit li nga xamante ni moom ngay xëccu nag wa koy meññ bu fekkee ni nag wi fexewuñ ko yefal dara du ci génne du meew du ndawal ci waxin naka la ñu def ba suñu entreprise yi autant ñuy laaj suñuy sañ-sañ autant ñu xam suñu wareef waaw loolu moom li wax dëgg la parce que euh, bu fekkee entreprise euh, amul defe naa emploi du am. bu mm. emploi du amul euh, salaire maanaam du am bu salaire amul donc donc liggéeykat du am te liggéeykat bu amul aussi syndicat du am. Mm-hmm. ba tax na nag loolu yëpp dafa lëkkaloo. ba tax na nag entreprise yi seen wàllu bopp am nañu seen wareef mais aussi dañu am aussi ay ay parce que entreprise boo gis ay nit ñoo dajale seen i koppar.

kat bi war na ci mën a gis boppam bu baax a baax. Mhm. sax euh, Alaaji Assane loolu moo junju dialogue social. Mhm. boo déggee ñuy wax dialogue social bi ko. bi euh, organisation internationale travail di wax. mooy dañ daan jékki-jékki rek ñu ne entreprise bi tëj na wala mi ngi bëgg a tëj léegi dañuy def départ négocier wala départ volontaire wala compression maanaam ñu poste poste salaire bi daal poste emploi foofu la ñuy laal. te du ñu mhm. laal feneen. ba tax nag moom ñu ne dialogue social mooy lenn léegi li ñu am mu bari mu néew nañ ko wone ñëpp xam ko. Mm-hmm. li nga xam ni mën nañ ko séddoo wala ñu nga xam ne ku nekk am na ci wàllam ñu jox ko ko ëllëg si biir bu entreprise yu dee sooxe wala moom am ay problème danañ ah kon damañ tolloo fii. ki mm-hmm. am donc mu ñong li da nañ ko séddo lañ am légui ñoŋatul. Mm-hmm. léegi nag dañ doon négocier ay départ parce que bu dul loolu du mën sorti oui donc lool mooy dal dialogue social. Mm-hmm. donc dañ koy waxtané avant que ñu dem ci ay xew ak ay ŋaayoo. justement Mballo bu ñu taxaw ci poñ bobu parce que aussi xam nga borom kër. Euh, vraiment banque te jigu ko ca it euh, musiba également mais lu ci mën di am di ko teel a gàttandu sax dina xaw a wàññi choc bi tuuti ñaanu ma ko yàlla ci ci entreprise bu mën a doon ak mais àddina moo toll noo xam ni faut il faut que ñuy ñuy waxante dëgg rek <laughs> ndax la baabu fay waxoon ca bëre ba lu ne xaj na ci maanaam lu neex xaj na ci àddina ci li ñu dëgmal comme lu naqari xaj na ci il faut tout prévoir dialogue boobu léeg-léeg nit di casse di grève naan damay def brassard rouge dakkal liggéey bi fekk xamul sax état financier wala état de santé kër ga muy liggéey te yooyu mun na jur mbeteel parce que waa ji tamit borom kër gi mun na ne di góorgóorlu nga foog ne euh, dafa laa dafa lay muusanteek yow mais bis mu daal di déclarer loolu ngay wax ca yoon may na ko bu fekkee ni mënatul nag ñëpp taxaw ca yoon loolu musiba la. waaw loolu musiba la d'ailleurs sa am na exemple boo xam ne dafa taxaw par exemple lu mel ni poste mhm. exemple bu taxaw la parce que poste c'est vrai nguur moo am na lu mu ci am wante nag mën nañ xam ne aussi gestion bi presque gestion bu privé la mhm. mais bu fekkee ni poste tamit nekk na di am koom di liggéey mhm. ba finalement mu dem ba jamono commencé soppeeku ba poste li mu mënoon mënatu ko ba koom bi muy am mënul couvrir charge am ak te charge yooyu charge payeur état bi enfin charge yooyu aussi te dafa ko incombé. bon léegi li am solo mooy kër gu mel noonu est-ce que dañ ko war a tëj.

effectivement nag bi kay moom ci boppam moom mooy entreprise bi. voilà voilà entreprise bi ko taxawal. Mhm. mais nekk aussi pour liggéeykat bi. Mhm. lu nekk bu ñu dee waxtaanee rek. oui oui fi mu nekk nii mais li lañ am ci li ñu am nag moom am na lu nga xam ne mënul mënul ñàkk mais am na li nga xam ne li nga xam ne mënul ñàkk nañ nañ fexe ba mu am loolu mu am solo. oui oui maanaam bi aussi li mu demandé l' impossible. Mm-hmm. même bu demandé sax l' impossible comme ni ñu ko waxee mais que le possible soit permis. Mm-hmm. maanaam bu la buñ la laaj lu lu lu lu jéggi dayoo waaye li nga xam ne mënul ñàkk aussi te nga am ko aussi nga joxe ko. Mm-hmm. waree fi nga eh, li nga warloog say liggéeykat nga koy def. nga koy def aussi mais ne aussi am am say liggéeykat. Mhm. donc lépp lu am nga def ko ci sa poche wala def ko ci sa banque. ñëw mhm. ñu fay guddeeg ba jël te ñu tedd te pour tra lu tax organisation si mondiale travail di wax naan travail décent. mais liggéey bu nga xamee ne xel ni daf lay daf dafay da nga ciy tedd. waaw liggéey boo xam ni nag doo ci tedd kooku nekkul un travail décent. Hmm. waaw loolu nag di yor ay milliards yu ñu jeex nga nit ñi nga leen di comme ni euh, xale yi di wax di compal nit ñi alors que ñoom bu ñu. bu ñu hmm. taxawul tamit entreprise bi du taxaw. parce que machine yi bu ñu fi nekkee trésor trésorerie bi nekk fi tamit. Hmm. mais ressources humaines yi comme ni ñu koy waxee la ressource humaine est la ressource la plus importante dans l'entreprise. oui exploitation la euh, loi du travail euh, est ce que euh, inspection du travail est ce que ministère bi mou def du ni Lolo, dafa lu bare aussi nañu président de la République pour inspection du travail parce que aussi. nit ki ci boppam tamit boo ko dul contrôler aussi lu nekk da koy def. entreprise yi fu mu nekk nii contra yi si seen wàllu bopp yenn saa du tëddee nu mu war a tëddee. parce que am mhm. contrat durée déterminée ak contrat durée indéterminée da ngay gis contrat durée déterminée yoo xam ne xel ni day am app. dañ koy continuer di ko def te fekk na liggéey ba fa nekk war na mun a am de manière indéterminée. Mhm. ba pare ba pare agent bi nga jël doo ko doo doo ko jox contrat durée indéterminée. Mhm. loolu mu nekk problème léegi sax dañoo xew leneen ay contrat de prestation. ak mhm. yeneen façon con xeet contrat yoo xam ne xamuñu ko. fu mu nekk sax si signalé nañu ni si hôtel yi sax ak yooyu am na ñu wax. ay ay contrat d'apprentissage yoo xam ne du jeex mukk mukk mais nan la nit ki amee diplôme ba pare. Mm-hmm. nga naan ko contrat d'apprentissage alors am na am na diplôme ba pare. donc contrat de prestation ñun suñu structure sanitaire yi hospitalières yi da ngay dégg ñu naan contrat de prestation or xam nga prestataire yow Alaaji Assane mën nga def appel à candidature mu am. wala appel d'offre mu am entreprise bu a seen mm. bureau yi mm. mais entreprise bi gagné prestataire bi ay employé di fay employé employé di mm-hmm. mais donc prestataire si boppam munul nekk am personne euh, mm-hmm. physique personne morale vous war doon ñu contrat de vacation vacation ay heure donc mais bu ni contrat vacation heure la nga gis ci 8 heures le de matin. Mais contrat est mbalo, faut nous signer parce que dès l'instant qu'il y a un contrat, ça veut dire que l'existence de ces contrats, ça veut dire que y a un Peut-être il faudra changer la loi, tu vois wa xam nga contrat bi ci bopam aussi non loi bi ko du travail war nañ ci seetaan bare bare parce que contrat ci bopam tamit dañu ni ñaar ñoko c'est vrai mais ñettal bi aussi moy inspection du travail. mon tax mhm. benn confidentiel. oui oui nak bu coow amé nga dem ci inspection du travail parce que fofu du juridiction mo mën wax ni instance de conciliation la. oui bu ñuy juboo baax na. fu ñuy juboolee la inspecteur du travail dal ko yóbbu tribunal du travail. bu foofu foofu tribunal du travail moom moy atté mhm. mais nag li ci gën bari bëri liggéeykat bi aussi day fay ragal dem. Mhm. wala yeen saa aussi mu gagner procès aussi balaa mo jot ci xaalisam aussi mu yàgg. ba tax na souvent aussi. dafa dafa am lu décourager ci yoon wowo il faut que ñu ñu sawarloo liggéeykat bi ci fànn woowu ko muy dem di kalaame di dem ci yoon. mu bañ am ay lenteur. léegi côté bu nekk la xam nga kon dialogue bi bu fekkee dafa sooxee. oui oui l'inspection du travail mu mu ci dara daal yóbbu tribunal du travail tribunal du travail boo demee aussi doo mën a jot ci say mhm. donc mu situation difficile. oui ensuite inspecteur du travail un contrôleur du travail aussi Vous faites que ay jumtuwaay bu vous voulez a permettre ñu dem dans les entreprises. Mhm. ah ñoom it di contrôler parce que nous nous, ñu payoon rek mais condition de travail y en a aussi. les condition de sécurité c'est une sécurité oui. amna solo. ak maladie professionnelle ak yu a ci bari. Ah. c'est important merci. encore une fois Mballo Dia ñu and ak Saourou Sène mom conseil du président de la République euh, nekkoon ni jamono njiital SAEMS Saourou maa ngi lay ziar Sène mais mangley ngi lay ziar bu baax El Hadj di nuyu sénégalais yépp euh, commencé rek fi nga xam ne foofu ngeen commencé. Mhm. di présenter condoléances à la presse sénégalaise. ndax fi nga xam ne moo fi jógee muy Mame Less Camara. Mhm. def di woon un exemple dans la presse un exemple d'humilité un exemple de courtoisie mais un exemple de rigueur dans la profession. Mhm. alors loolu moo tax nag euh, foog naa du presse bi kese moo ñàkk euh, Mame Less Camara sénégalais yépp ñoo ko ñàkk. Assane nga may ma ma profiter occasion aussi euh, ndokkeel liggéeykat yi yëpp. Mm-hmm. nga xam ni liggéey moo yore réew. loolu lu lu lu wóor la félicité la nag ci entretien bi nga xam ne def nga ko ak son excellence nga xam ne sénégalais jëlee nañ ci ay information yu bëri te jàpp naa ni ci contexte bi lu am solo la. jërëjëf merci Saourou euh, justement wàllu liggéey ndax ay liggéeykat lañu. surtout ñuy liggéeyal nguur ñu baal ma wax dëgg yàlla du ñëpp bu ñëpp yamee am ñu gedd seen cër mais am na ñu seen alal daal ñoom duñ ko fulal manam du seen alal parce que loolu lañu ñu foog rek mais euh, dafay ñëwaat dafa daf leen di laal dafa am benn réflexivité bu ci am doo ko sentir kër ga ngay liggéey entreprise bu fekkee wàcc nga bàyyi climatiseur ba noonu ah, yow sa yoon ci robinet buy xelli sa yoon ci dara yaa ngi yàq rek en interne mais bis bu kër ga ne kalaj euh, waxuma la yow salaire mais sa njaboot doo ko mën a awuti surtout nag ñiy liggéeyal nguur foog nañ ni alalu buur moom wax dëgg yàlla mu ngoog daal du jeex wàcc heure bu la neex tappale doo ñëw bureau et cetera Eh, muy dégg bu wér peng El Hadj Assane gis nga entreprise bi foo mën a nekk muy public muy privé bu jàpp ni entreprise bi mooy entreprise u chef d'entreprise bi mhm. da ngay jàpp ni sa entreprise la yow parce que sa sutura foofu la nekk te yi ngay yóbbu sa kër mu jëriñ la jëriñ sa njaboot foofu nga koy jëlee mhm. loolu moo tax bu dee dañu amoon la culture de l'entreprise nga xam ne l'entreprise moom ñi fa nekk yépp ñoo ko bokk mhm. te d'ailleurs développement wane na instant bii nii kenn nekkatul rek di naan nañ xaar suba suba yàlla la déedéet dañuy nekk dans ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats mhm. de sorte que entreprise bi ci boppam dafa war a am un plan

entreprise boo mën a jël service public boo mën a jël dafa am un chef de service. oui chef de service boobu nag bokk na ci liggéeyam mu contrôler la gestion du matériel. Mhm. naka la gérer kër gi. muy lamp muy leneen ak leneen yooyu yëpp daf ko war di saytu. Mhm. parce que ci l'école yi ma xam de bokk na ci lu ñuy nondee jàngalekat yi. un type de relation la am ci biir école bi ak yeneen jàngalekat yi naka lay gérer le matériel de l'école. école mhm. alors loolu nag boo ko indee ci service ministériel yi wala yu xeetoo noonu mais dafay am solo aussi biñ leen di noté aussi mhm. ñu xool gestion matériel boobu naka lañ koy defee wante mhm. ñu gën a insister surtout sur la formation des ressources humaines parce que tout le problème qu'on a au Sénégal c'est un problème de formation et rawatina nag ci entreprise yi et de profil également parce que aussi bu faites ni ay yaama neex rek de euh, vraiment fu ci ne entreprise euh, privée comme publique. Euh, nit boo ko tegee fa warul. di ko laaj di ko laaj war. mais bien évidemment du ko xam. dafay jafe xam nga xam nga ci profilage bi El Hadj Assane. xëy na jàpp naa ni quand même ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy ci kanam muy les responsables ñu leen tan jamais te xooluñu sen profil. Mhm. ñuy poser problème ci li gëna bëri. mooy ñi nga xam ne dañ leen recruter indi leen te amuñu woon profil. Hmm. ñu war leen former nag parce que yow yaa ko indi. Hmm. yow yaa soxla ci moom lenn kon war nga def investissement bu la mën a permettre. mu un minimum de connaissances qui koy mën a permettre ñu satisfaire parce que loolu aussi dafay bokk hmm. ci la formation au niveau de l'entreprise euh, parce que école noonu lay noonu lay doxee école bu ñu recruter ay jàngalekat yoo xam ne amuguñu diplôme professionnel mais dañuy def un plan de carrière bu leen mën a permettre ñu retourner soit FASTEF wala dans les effets ñu mën leen former au niveau entrepreneurial aussi mais loolu aussi dafa war a am. parce que mhm. mënoo am résultat ak ñoo xam ne dañuy tâtonner. dëgg te El Hadj Assane dafa am kilifa bu mag bu ne. Mhm. Euh, ci benn aspect bi nga wax sànq ak suba frère Mballo Dia ma koy nuyu de passage. Mhm. Euh, kilifa bu mag def ni woon. te gis nga ànd ñaar ñoo koy yàq. ma nga gantuma loo xam ne wóor na ma ni man nga ko mhm. wala boo ma teg la loo xam ne man mi la koy teg wóor na ma ni yow mënoo ko laaj la lu lu amul voilà laaj la mhm. loo xam ne man xam naa ne yow mënoo ko donc dans le monde de l'entreprise mhm. ou de façon générale relation travailleur et employeur il faudrait que ñu jàpp ni objectif bi dafa war a nekk benn objectif bi du dara lu dul développer suñu réew développement boobu nag

sans parti pris war nañ reconnaître que quand même le Sénégal a fait un bond extraordinaire sur le plan de l'émergence. C'est uh-huh. gis dynamique bobo, mm-hmm. entreprise yep, ñoo une dynamique d'ensemble, un mm-hmm. mouvement d'ensemble. parce que quand avons na yàlla may nous ñu mais tout le temps mm-hmm. voilà mais nous avons le Sénégalisme syndicalisme Euh, xam naa ni euh, kenn du leen jàngal seen euh, métier yàgg ngeen ci ak yi bari nañu bu naam li des it bari na mais fi àddina toll avant ñu wax suñu économie bopp ñu wax ci li nu wër ak fi àddina toll guerre yeeg Covid bi ni nga ko waxee yeneen ak yeneen est-ce que mënee su la changer cette façon classique de faire le syndicalisme.

xam nga xam nga fi ñu toll nii El Hadj en matière syndicale. Mhm. ñëpp xam nañ ni le rôle classique d'un syndicat. mooy que mu xeex pour que ñi nga xam ne ñoom la njoboote ñu mën a jot seen ak ak seen yelleef ci seen entreprise ci seen école ci fépp fu ñu nekk. wante nag nañuy wax tout le temps la vérité la vérité mooy. lépp normalement pour une organisation syndicale. Mhm. lu ñu teg ci table bi ko xool xam ne lii lu tegu la warul nekk loo xam ne rek dañ ko teg rek pour des choses politiques voire même bloquer le fonctionnement de l'entreprise ou bloquer le pays gis nga loolu buñ ci duggee ci rythme boobu mais ñëppay perte mhm. ñëppay perte loolu moo tax ba jàpp ni euh, même sur la façon de revendiquer xëy na bu pas ko waxee ñu ne non non non parce que le secteur général du syndicat mais war nañ évoluer on nañ évoluer parce que am évoluer mhm. le discours qu'on dans les années 2008 2022 le discours qu'on à partir de 2022. Mhm. changé comme changé ñun évoluer mhm. ma insister ci secteur bi nga ne sénégalais sentir que école bi dal parce que nag am na loo xam ne wàdd na ci mbiru école loolu nag ça signifie pas que amuñu ay problème mhm. ci problème yi maintenant <laughs> xam na xam yoo xam ne dañ koy waxtaanee ji ko euh, monsieur le conseiller xam naa ji ko syndicat baa génn nag mais ñu mhm. del si ci ponk bi ma bi ma yitteel mooy bu ñu waxtaanewul entreprise yi ak lii fi ne ay ak yi ko sakkanal ko tout le monde perdra euh, du rek liggéeykat yi génn ko di takkoo ko euh, xaacu ñoo ñoo dañu foog ni patronat bi moy perte mais de part et d'autre vraiment ay nit bu ngeen bokkee intérêt euh, bok fa ngeen jëm da ngeen di yego. mais c'est ça lu ko mooy c'est juste pour pour sauver le salaire qui est important pour les familles sénégalaises mais c'est tellement vrai que xam nga état bi aussi état bi dafa mettre en place ay institution ay structure xam nga tey Sénégal am nañ le haut conseil du dialogue social mhm. nga xam ne suñu tata euh, Innocence Ntap Ndiaye moo fa nekk di def liggéey bu bëri sauf que liggéeyam boolew ci wax ju bëri mhm. dafay dem ci wax tase ak entreprise yi mhm. tase ak travailleurs yi di def un travail souterrain pour que ñu mën yegg ci yenn situation yi. anticiper un peu dañuy jàpp ni à chaque fois bu ñu yeggee fenn fi rek parce que parfois télé na télé bi nak du. Hmm. caagan le monde du travail ou travailleurs yi ñoo ko mais mën na am aussi lu muy laaj entreprise yi entreprise yi fuñu ko. alors yooyu yëpp def ci bokk wan nag li ñuy gën war a jàpp rek mooy na ku nekk delloo xelam. Hmm. ñu jàpp ni de. suñu réew de ñun ñoo ko moom. C'est te gis que le monde du travail dafa nekk des travailleurs yoo ils ont le sens de l'effort ils ont le patriotisme qu'il faut mais aussi hmm. mettre l'un dans les conditions yu leen permettre seeni compétence seeni professionnalisme nous hmm. mën ko à tout point de vue Très bien. Euh, Mm. esprit d'équipe surtout bobu dafa am solo ci fu ñu toll actuellement. dëgg la gal gi ben gal la ñun ñëpp euh, la la la la yëpp di wéy kon yàlla na teer ak jàmm jërëjëf Saourou. <laughs> merci Saourou sen jërëjëf El Hadj ñu koy gërëm conseil de président de la république nekkoon di jamono secrétaire général bu SAEMS su gërëm bu baax secrétaire général bu SUTSAS euh, naka noonu jiite mbootaay gi di ànd gëssëm balu Diatiam Abdoulaye jobu nekkon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi réalisation Barthélémy Ngom ñu yendo ak jàmm. what they see for the future. Oh, oh, oh.